waa mais saa yi naka mu. doole ziar. yaa ngi si jàmm. maa ngi jàmm bu baax. problème mu Ada bi moo ñu fi indi tey ñu waxtaanee ko. d' abord euh, bi nga yëgee jàpp bi ban réaction nga njëkk am. ah am na loo xam ne moom kenn du ñu ko wax. Hmm. ñaari yoon man affaire yi yëg naa ko avant tey yëg naa ko depuis semaine prochaine barki sëñ Bamba. semaine dernière. semaine dernière barki sëñ baam hmm. ba tey laa xëy marché di xëy gi. ay 7 dama dugg marché rek ñu téye ma ne ma gaañee li seen mbër bi def ma ne lan suñ mbër bi def. waaw ñu wax ma rek man tamit sama maayan daw ma xam ne kon li ñu ma doon wax kon amaana tey la ñëw. yow la lan la waxoon semaine passée. non mais ñu ma waxoon tamit. mooy lan mooy mooy li ma li ma xëy tey déglu ko seetaan ko ci TikTok bi. mooy Arafaas da doon sàcc ñu jàpp ko. voilà man loolu lañ ma waxoon. ma xëy ah tey seetaan ko ci TikTok bi dégg ko quoi dégg gars yi di wax ay rumeur mais man ba léegi amaguma lu ma ci leer. moom laay moom laay laay laay mi ni moom la moom man ban monde la nekk moom kon. man kenn toogagut ak man wax ma ci lu leer naa ñi mais dégg ay rumeur avant man même gis nga sawaay man juddoo ma Fass man Touba laa juddoo. ah yow saa mais Fass moo fi ñëwee ba léegi. Mhm. fii ku tourné am na ñoo xam ne sax bu ñu gisee foog nañ ne man Fass laa juddoo. parce que dama yàgg faas man aada moo tax man sama image dem fu ne. barke borom Touba ku ma xamul woon Ada Fass moo tax nga xam. Mhm. billaahi parce que maa njëkk a taxaw ci TikTok bi firi misil dóor ko. misil borom Touba. lu misil xamoo misil. barke borom Touba génnee sama image jaay sama image quoi lu ne mënoon na ma cee fekk dama doon jotee appel ba Touba gi ma dëkk ñu may woo. gars non dama bëgg nga expliquer mooy lan mooy missile missile ban missile nga firi lan mooy. maanaam missile laa firi dóor ko ci air bi ñëpp di gis ma taxaw barke borom. Touba ne Ada Fass kese laay topp. parce que jamono jooju jaraloon na ma ko. goon nga yoroon quoi. du goon. waaw ah, lan nga yoroon wax expliquer ñu. missile tamit xanaa yow këng nga tamit. bu doon këng non mais gaañ yow. xam <laughs> non mais sérieux li ma lay wax nii dëgg la barke borom Touba bu la neexee dugal ci TikTok bi nga xool. nga firi misil daal di dóor. billaay dama doon dem ay nit ne ma taral taxawal defal ñu benn video bala ngaa dem mais jamono ji da ngay dem ba yow doo bëgg a sax dëggati faas barke arxuraanu karim. ndax yenn ndax yenn business yi. yan business. baay tamit yow yow tamit junj doo na borom xel am na loo xam ne ñun dañ ay ngaaxa. war na borom Touba ah, mais xam nga ban question la am envie posé la ko xam ban question la am ko yow biñ ne biñ biñ jiñee loolu sa mbër yow sa conscience tranquille xalaat nga ni sa mbër capable na def loolu mbër mbër man mbër man mbër bu ma xamoon waaw jamono ji man xamatuma ko ah, lu tax man jamono mbër mi ma xamoon jamono ji xamatuma ko lu tax barke borom Touba lu tax xamatoo ko waaye Ada Fass léegi ça fait deux lan ah mais yow aada léegi face face sax pour ñu gis ko problème la baay loolu pour lan yow ñi nga dëkkandool ñi nga xam ne yéen a foondoo yéen a màggandool bàyyi tamit ñooñu rek nga am keneen ku xoolal àndandoo bu bees du àndandoo. mais bi nga yëgee ni aada dañ ko jiiñ sàcc. yow jàpp nga ni aada am na fi du def loolu. loolu moom man gëmaguma ko parce que preuve ah gisaguma preuve man loolu mënu ma kaa gëm parce que aada instant bi jamono ji man ah man boog sama conscience tranquille man gëw ma ko quoi non même pas mimal sax mais man gëw ko. parce que teguma ci sama bët. mais ñuy wax ne aada dañ ko dañ ko naawtal li muy def yooyu. jàpp yëpp mën naa ne. ah bon du ma la fendee. Ah. man lépp xam nga kan laa koy sippi. Ah. jabar ji mujjee takk barke borom Touba moom laa koy sippi. <laughs> waaw lu si yoonu jabaram. moom laa koy sippi moto mbuur yooyu noonu defee rek nga ni jabar ji laa koy oh, ji laa koy sippi problème yii nii nga mujjee gis nii yëpp. bi ah. jabar ji ñëwee la. kon danga nga bëgg a wax jabar ji jigu ko. waaw jigu ko moom sax xam na ne jabar ji jigu ko jigagu ko liñ gisagul nii jigagu ko barke borom Tuuba jigagu ko baay ku dee ak sa baa mel nañ waxante dëgg xale bu ndaw tollagoo fooy amee bay ñàkk. waaw baay Ada Fass xam na lu bëri li ka war lim am nii nii nii nii ci diggante bu gàtt moom sël mbër moo ko am. billaay walaay boo génnaatoon fii demaat ba yeneen dëkk sa waay man ki korte lépp damay dem Touba da ngay dem ba Touba fek ay mbaam yoo xam ne Ada Fass lañ ci bind ay saret ah bon barke borom Touba nga xam ne kon aada gaañ tamit am na instant bi dafa war a defaraat encourage am. Uh-huh. aada xool bu baax ñi muy toogal ak ñi muy àndal. bu fekkee tamit dëggale ci li mu wax mu taq jabar ji indi ko bàyyi këram bii mu ceene. Uh-huh. mu nekkaat dund ci phase bi mu daan yàgg a dund. Uh-huh. bàyyi nekk xam rek bàyyi yenn àndandoo yooyu tamit ñun loolu lañ koy sas. mais man li ma jaaxal li sama li may déranger ci affaire bi rek mooy Ada Fass nekk magam jëmm. ñu jàpp ko ci ay mbirum moto ay affaire sàcc ngeen bëgg ko jël teg ko ci kaw soxnaam si ni c'est à cause de la femme loolu laa mënul d'accord quoi. man de sa man li ma lay wax rek. Hmm. li nga fi gis nii coow li nga fi gis nii yëpp. Hmm. bi mu takkee deuxième femme bi la ah. ba léegi nga fi gis ay coow ay aadaa ngi xeex supporters yi ay aadaa moom lañ jiiñ fee affaire engin nañ waxante dëgg hmm. waaye duñ ay ngaaxa. bàyyi bu dul dara sax ñun dund nañ ko ba bàyyi ko mbokk man jamono ji bokk am na loo xam ne milieu dund nañ ko ba bàyyi ko lan nga dundee yow milieu hmm. li ma lay wax nii nii yow da nga daan suus sa waay ma la xanaa hmm. am na loo xam ne duñ ci wax mais dama ne la hmm. dund nañ ko ba passé ko instant bi dépassé nañ ko ñi ngi xoolaat leneen nuñ defaree suñu avenir mais pas ay yenn yu sew quoi kalang-kalang yi ñu la ciy dégg man ruus naa sax man mii nga xam ne xale laa ñu ma ciy dégg jamono jii ay affaire ancien kii moo jël sama ancien wala kii jëlu ko bàyyi nit di ko dégg rek dafa ñaaw amaana sax ñu la cay fekk bala ciy gis barke borom Touba tamit aadama moo war a rafetaal de lépp ñëw faas xam ne fii nu man di ñun dañ koo bëgg amul mënatut deñ mën ngaa taxaw xaaj ñu ne mbër bu amee combat du dem mais dugg na sa xol ba pare mënatoo ci dara barke borom Touba xanaa di ko ñaanal jàmm rek ci lii mu nekk nii suñ borom xoolal génnee ko ci ba mu ñëw àndaat ak ay mbokam man da loolu laa koy sant. billaay wallaay. mais moom bu génnee ban taxawaay la aada war a taxaw en tant que champion en tant que mbër en tant que doomu Fass ban taxawaay la war a taxaw pour rëcc. ñibbisiwaat ci ay mbokam soxna si nag nu mu koy def. na ànd ak moom ñibbisi bu dee bëgg na ko day ñëw toog ànd ak moom mais kat yéen yéen ko mënul may jàmm ba mu ñëw. parce que parce mayoo leen ko kanam da yéen. sa fii gis nga li ngay def ba nit ñi jàpp la yow def moom bu defee li tax nit ñi jàpp ko dañ koy jàpp comme ni ñu jàppee Ada wala moom na ñëw wane ay preuve yu leer naññ gars yi na ko ñirib tee ko loolu gese la de man de loolu laa gis. man mais li di wax naan ay lucide ak affaire yooyu noonu loolu aussi lan lañ ci wax. aada sa waay la ku la wax aada day tux wax. lu tax gars yi ko jiñ yow boo lan moo tax gars di ko jiñ parce dañoo xam aada avant tey. mais lu tax gars di ko jiñ yooyu. dama ne la ñun dañoo xam aada avant tey. barke borom. xam nga yi bari nañ fi mais moom lañ koy jiiñ quoi. lu parce que dafa ñëw indi indiwaat ci làmb beneen xar kanam hmm. mooy dafa ñëw imposé bandi te moom dund ko am nañu ñu bëri ñoo xam ne dañ koy foog ne da koy dund mais aada dundul bandi. maanaam daa ñëw imposé ci làmb bandi ñu foog ko bandi mais aada du bandi aada Baay Faal la. barki sëñ Bamba aada Baay Faal la champion la hmm. mais xam nga rek. suñ borom mooy xool ki ka neex mu teg koy amaa amaana lii nii nii nii bu jàllee li ñëw ci kanam mooy dàq nañ ñaan rek lii ñëw ci kanam gën a dàq mën da loolu laay ñaan. yow bi nga mujjee gisante ak moom euh, waxtaan nga ak moom pour mu pour mu dellu si wala pour mu nekkaat nit affaire yooyu. non man moom aada moom bu dee dëgg la yaa bëgg. Ah. gën nañoo gisante yéen la yéen xanaa toogee ak aada am fitu di waxtaan ak moom. waaw. yéen dafa mel ni ñi ma woo leen. bëri non bul ñu war a wax ak moom ñi ngi war ñi ngi wax ak moom. Ah. comme yow temps bi moo ñu ko mayul mais bu ñu ko temps bi mayee ñun ñëpp buñ fi boo aada ñun yabuñu. mais vraiment. waaw mais instant bii nii nii nii après lii nii lépp jàllee nga mën a nag toog mën a wax ak moom. waaw ah, loolu ngeen waxoon ci mariage bi naan ne bu jàllee dinañ wax ak moom lii jàll leneen ñëw. mais dafa jàll rek gis nga mooy li ma la wax rek ay nattu la rek mais gis nga lii day jàll leneen ñëw lu ko dàq boobaa moom dina xam moom mooy kan ci lii nii nii nii rek war na cee mën a xam moom mooy kan. Mhm. parce que yaa ngi jóge dara ci lu yàggul nii nga ñëwaat tey xoolal lii. am na loo xam ne ñun daf ñuy metti mm-hmm. billaay walaay daf ñuy metti parce que ñun ñooy sonn ci Ada Fass yow tey nga gis ma xam ma ci Ada ne ma gaan sa mbër mi ni mu def comme tey rek barke borom Touba noonu la noonu laa xëyee marché sa mbër bi sa mbër bi sa mbër bi sa mbër bi man leen gars yi di revue de presse loolu la man Colobane noonu laa fay amee problème de dañ may woo ne ma gaan seen mbër bi nii la demee nii la demee mën a gaan man de tamit noonu laa ci tool jeex na. kon tey nekkoo woon à l'aise bi nga demee marché. gisoo marché jóge naa fa depuis midi maa ngi fii Fass. <laughs> boobu ba léegi xam midi nga wàcc teel nga wàcc di. delluwaatuma Colobane parce que dañ may sonal. delluwaatuma Colobane non dañ may sonal. Ah, yow yow da ngaa demul Colobane moo tax Colobane dox daje kenn ku nekk fu ngay jógee mais man Fass laay jógee chaque jour di dem Colobane di fa jóol. waaw lan ngay jóg yow. man yëre jigéen laay jaay. Ah, d'accord waaw. yow waa ñu lay may ma benn vidéo nga may kii bu ma ko xañ. wala boobu waaye <laughs> vidéo la laa lay may aada waaye dërëm toos baal bañ jàpp zoos rek cangal bañ jógee.